ak euh, bureau bureau section parabasket bu bees ak ay dirigeants yu bees su ma ko mën a waxee noonu parce que au départ ça se passait pas comme ça c'est il un an bi ñu mettre en place benn structure bu bees section parabasket boo xam ne il s'occupe que pour le basket et à travers ça ñu bëgg innover bëgg indi ay changement en tout cas équipe équipe bu bees bu fi nekk euh, ba tax équipe nationale bi nga xam ne moom moo nekk sur place tey te moom moo waral sama ñëw fii. Mhm. Ah, euh, ñu def lépp loo xam ne en tout cas euh, compétition bu mag laaj na ko wala pour am benn yenn résultat yu positif yi laaj na ko ñu dem indi benn entraîneur français boo xam ne euh, ku am yenn dayo yi la foofu am expérience loolu benn la deuxième chose bi mooy équipe nationale bi tey. ñu am chance suñuy ay joueurs expatriés yi nga xam ne ay joueurs professionnels lañu comme ni mu amee ci football bi ñu fexe ba décrocher leen indi leen boole leen ak les meilleurs joueurs du championnat local pour ñu mën a constituer benn équipe nationale bu solide. Mhm. donc tey euh, pour wax euh, et et je xaw ma nu ma ko mën a expliquer ndax cri de cœur la cri de cœur la wala lan euh, vous pouvez pas imaginer depuis dix jours ñu ngi en regroupement fermé. Mhm. war a dem compétition internationale. Mhm. boo xam ne c'est pour les prochaines jeux qualificatifs des jeux paralympiques Paris 2024 mhm. ñu nekk ci dernière phase wu qualificatif yi parce que demoon nañu yaawee euh, am na amoon na premier phase bu ñu demoon ñu qualifié mhm. ñu ñëwaat war a delluwaat avec yeneen douze équipes euh, yeneen onze équipes africaines mhm. ak Sénégal muy douze mais au moment où je parle dama bàyyi regroupement laa jóge ñëw fii munuñu leen wax ndax dinañ mën a participer ci compétition boobu compétition bi dina démarrer demain après demain lay démarrer. su ma la déggee bu baax dañ leen seetaan. bu baax a baax si bu fekkee dañuy wax les choses commission dañu seetaan sur tous les plans dina am ñoo xam ne dinañ ñëw dem indi seen soutien et tout mais du loolu. Mhm. parce que ñi ñu war a jàppale dëgg dëgg dëgg dëgg. sentiruñu seen seen seen seen jàppale. ñoo leen war a jàppale. mais suñu ministère de tutel ay sport la ñuy def. forcément suñu ministère tutelle moo ñu moo ñu war a jàppale. tey mën nañu wax ne Sénégal amul un ministère euh, euh, euh, du sport boo xam ne dañ ko nommé après départ ki fi nekkoon. mais tey premier ministre moom moo yor intérim bi moom moo ko yor. Mm-hmm. donc ñun xamuñu ndax blocage bi foofu la ou pas. Mm-hmm. te loolu vraiment lu ñuy déplorer la. Mm-hmm. te tey démb la ñu waroon voyager en principe. pour être un peu à temps malheureusement amuñu amuñu amuñu amuñu billet ñuy voyager. ba fi ñuy wax ak yéen d'ici dix-huit heures bu fekkee ne suñu lépp loo xam ne dañ ko war a def côté administratif respecté wuñu ko mënuñu duñ mën a participer même bu ñu demee duñu participer parce que aussi euh, compétition internationale dafa am ay règles yoo xam ne mm-hmm. da nga ko war a respecté mënoo toog ba sa xol sedd wala nga toog ba nga xam ne euh, euh, compétition bi démarré na nga bëgg ñëw toog ne da ngay participer non dafa am ay préalable lépp loo xam ne en tout cas lu jëm si ñun en tant que section foofu la ñu waroon fekk au moment où bi ma wax ni foofu la ñu waroon fekk parce que suñu suñuy suñuy suñu euh, pays ñuy ñu war a yi war a dem yépp ñu ngi foofu am na ñoo xam ne ils sont en regroupement depuis plus deux mois oh là là mm. donc euh, pour pour wax la ni vraiment euh, du loo xam ne c'est encore et puis ku xam compétition internationale compétition haut niveau mm-hmm. joueurs yi fa nekk tey nekk ay joueurs professionnels ku xam ni jour di préparer aux compétitions lii psychologiquement du la du la du la du la du l'avantage très bien